ay Porokhane ñoo leen yegg fusti bizar fil azanat sidatan limusinat Maryama fo تراكي كن فياكو نولاكي خير رسول انتخاب وبكيفا سوسوتي خاد ولم يكن نصرك لم يخفي للمؤمن ah Porokhane ñoo ngi koy waajal bu baax ndax soxna jaara yëpp war a waajal màggal gi ñoo ngi waajal bu baax man en tànk que soxna jaara maa ngi koy waajal bu baax di wax safoor yi tamit ñu def ndànk yóbbu nit ñi si jàmm dikkaat si jàmm ak salaam xanaa yiiw rek yiiw yóbbu fa yiiw ànd ak dal siyaare siyaare bu baax bu yiw ñibbi si waat ak jàmm ak salaam loolu la ñuy ñaan. ñu fexe ba lépp lu ñuy def rek ñu jiital ci yar ak teggin te xam na yar ak teggin ci la jàmm xaj mooy lépp kon daal ñi nga xam ne ñu dem Poroxaan ñëpp ak ku demut li ci mat am solo te dëgg te nga xam ne moom mooy njàngaleem Serigne Touba daal mooy lépp lu waay def Serigne Touba dafa waxoon ne nit ki lépp lu muy def bu ci bañ a am gàcce ëllëg da ci yiital xam-xam. daan na yaa maxsaral subbaani in xiftum xajal faqat li moo taxal lu ma xalal xamal nee na yéen ñi nga xam ne ay lépp lu ngeen def bu ngeen bañ a am gàcce da jiital xam-xam kon nit ki su déggee ñu ne màggal woote nañ ko balaa jug daa war a xam màggal ga borom li tax mu am ko nu mu def ba am ko waaye wër ta jub rek daan ne damay dem màggali poroxaan te xamul li waral màggal gi ak borom màggal gi lim liggéeyal boromam ba tax mu am loolu ndax soxna jaarakat mbooloo mii dagg wuti ko nekkul ne da doon tëdd di wala da doon wala muy caaxaan wala muy taxawaalu ba ko dafa doon liggéey Serigne Touba ak sangam bu tedd boobee ba tax mu am li mu kon taalibe yi nga xam ne dañoo aju ci Serigne Touba yëpp jug na dañuy dem Porokhane li ma leen dénk mooy rawatina suñu mbokk safoor yi nga xam ne moom ñoo yor li nga xam ne moo ci gën a am solo muy dem bi ak dikk bi ñu jiital ci yërmaane buñ yokk paas benn buñ nekk di jaan nit ñi yooyu te ëpp oto ko yor soo bëggee am mujj gu rafet da ngay fexe ba képp ku ci dugg rek nga wan ko yor ak teggin ndax nit ñi ñëpp yemuñ da ngay sëf danga nga sëf xut bu saman da da nga da nga sëf saay-saay da nga sëf keneen kon boo yore oto da ngaa war a ba képp koo jëflanteel rek nga wan ko yar ak teggin ba képp koo sëf yóbbu ko xolam bu mu tàng ci yow rax ci doole tamit daw bi ñuy def ndànk di daw ndànk daw ndànk dal ndànk ndax de Serigne Fall nee woon na oto moom daw ndànk dal ndànk rek li nga xam ne daal mooy li li am solo daal mooy ñu def ndànk rek ñaan suñu borom defal ñu yoonu jàmm ak salaam ñu dem ci jàmm dikk si jàmm ci barke Serigne Touba te sëfoor yi def ndànk taalibe yi itam am yar ak teggin ab oto koo dawal ab xolam wërta tàng am na yenn client yoo xam ne daanaka ñooy merloo sofër yi ci ëpp ndax dañuy wax ñoom wax yoo xam ne du leen neex te nit ki buy dawal moom ñaari wax loo sax dañ koy tere wax ju na nekk loo ne mënta ñàkk di wax wax yoo ne ay caaxaan la nank bi dawal waaye di fëgg oto bi di yuuxaloo loolu du ay yar du ay teggin te képp koo xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa nga koo romb war naa am lu mën a roy ci yóbbu fa yóbbu fa yar ak yiw ak teey buñ demee nag ñu liggéeyal soxna si bu baax a baax chauffeur si ñu def nànk te xam ne ne si dëkk bu sell lañ jëm ndax lépp ànd am yoon waaw ñu ngi wax chauffeur si daal nañ def nànk def ndànk rek ndax Porokhane moom wax dëgg fa yàlla nekk na bis boo xam ne bu ñëwee ñëpp ay jógandoo kon def si ndànk da am solo ote yi moom ñu ngi fii soo ba léegi di yëpp bii si ay 2500 ay 3000 oto yi ndawet am na par 5000 ak yooyu mais ndànk-ndànk daal laay wax daal gars yi sama mbokk chauffeur ñu def ndànk dem si jàmm ñëwaat si jàmm ñun daal loolu lay ñaan daal def ndànk-ndànk daal. waaw Porokhane moom daanaka boo ko see taxaw si jumaa ji moom kenn ku nekk mooy ñëw waaw dal daal moo si am solo daal ndax nit moom ak lu mu mot demee comme ku nekkee ñëw te xamoo si kenn fu ñu jógee yooyu dal def ndànk yeb si jàmm def ndànk dem si jàmm ñëwaat si jàmm man daal loolu laay wax.